ñu ñu sol seen dàll li leen président li digal ñu koy def man loolu bi ma ko déggee am naa ci naqar parce que njiitu réew mën na bañ a am euh, euh, pexewu dem directement di gérer problème mais su waxee ne Seck ak président loo ak ñoom sëñ Maxtaar mi dem leen waxtaan ak ministre sàngam wala direction sàngam. Hmm. ba joxe instruction. pourquoi hmm. loolu duñ ko mën a appliquer man loolu bëgg naa la ci laaj seen xalaat. Imam Adama euh, Seck secrétaire général fédération nationale de associations euh, des écoles coraniques du Sénégal su baro wax na ko dafa am dafa mel dafa am benn genre jaxasoo boo xam ne day am ci biir xale yi ñii. ci daara lañ nekk comme ni ko imam Makhtar waxee ustaz Makhtar waxee sànq dañuy xëy buñ paree dem dellu ci kër am ñoo xam ne il sont tout le temps dans la rue état bi war a gérer est-ce que tey difficulté yéen fédération bi du mën a xam ñan ñooy xale yi jàng ak ñan ñoo xale yi ne ci mbedd mi ngir di leen exploiter comme ni ko waxee sànq. waaw ah, jërëjëf sëñ Moustapha yaakaar naa ni wax ji yëpp foofu la ne. Mhm. parce que dafa mel ni ba léegi tant loolu leeru mhm. ci bopp euh, sénégalais coow li du fi jóg parce que ñoom am nañ seen i concept nu ñu tuddee ay enfants de la rue enfants en situation de rue enfants nangam enfants nangam mhm. mais benn benn boo xam ne bii ndongo daara yi ñu yor ñun mhm. bokk nañ ca yooyu moom amut kon concept yi yéen gis luñ si non non non non mais ñan ñan ndongo daara yéen fédération wala daara yëpp wala la nan ngay waxal non ndongo daara de manière général waaw ndongo daara yoo xam ni ndongo daara laa wax de waxuma mhm. ndongo leneen ndongal daara Mm-hmm. daara bu ñu ko doon daara alquran moo tax ñuy wax. Mm-hmm. koo xam ne kii dafay dafay jàng. Mm-hmm. nekk ci situation boo xam ne xëy ne permettre ko du daara internat par exemple moom moom du génn. mais comme dafa waxtu yoo xam ne bu jotee dañuy wuti laaji sarax. lu ñu lekk lu ñu ndekkee wala lu ñu añ wala lu ñu reere yo dellusiwaat wax nga ko léegi. kooku jàpp naa ni mooy ndonga daara. mais keneen keneen nag booy bu ñu wutal ko beneen tur waaye du ndonga daara moom. léegi nag ñooñu laa la wax ni. ñun ñooñu ñooñu tax jóg ñooñu tax a sonn parce que dafa am ñoo xam ne ñoom ñëpp situation bi ñuy dund actuellement hmm. dañoo dem ba programme bii dafa mel ne ñoom ñooy cible gars yi ñan ñan yi ñoom ndongo daara yi ndongo daara yi ñu yor ñun loolu moo commencé feeñ su fekkonte ne tey ji yaakaar naa ne yam nañu ci ñoom nañ ko définir hmm. enfin ku ñu fekk ci euh, maanaam xale buy taxawaal parce que xale xale mbedd du këram hmm. ñu fekk imaginez vous benn waxtu woo xam ne wi wóor na la ne kii waxtu woowu waxuma la waxtu jàng waaye da dul waxtu wa waxtu waxtu waxtu waxtu wax ne warees na warees naa mën mën gis xale sax ci mbedd. 6 heures du matin kay. loolu kay man maa ko gis yoo xam ne bu xëy na jamono Covid bi la. mais lu jiitu Covid bi. mais am na waxtu yoo xam ne ay a askanale mm. keneen la koo xam ne kii dafa am lu ko tax a jóg. yor agendaam teg ko. Mm. boo demee am na sax ñu muy jëflanteel feneen fa mu jóge dégg nga ñenn ñi sax duñu ay sénégalais far ñoo ñooñu fexe ba def ko benn fonds de commerce di ci liggéey ci xale yi mais ñooñu la ñuy def kenn waru ko mandaxe ak li sëriñ yi def sëriñ daara yi yalwaanloo gi ñu yalwaanloo seen i dong il faut ñu leeral ni lu ñu lekk li ñuy wut ba mën a tala def li ñuy def parce que ñoom itam c'est des citoyens à part entière hmm. comme ñoom ci ay doomi réew mi lañ te yàlla def itam seen i wujur tànnal leen njàngum alquran ñu ñu ñu fas ci yéene def ndax doyloo gi ñu doyloo jikko yi nga xam ne daanaka moom maanaam daari alquran rek moo mën a tabax dégg nga ak ak formation boo xam ne bi formation islamique la bu ñu bëgg ci ñoom pour que xale yi ëllëg si biir ñu nekk ñoo xam ne seen réew dana leen mën a jariñoo seen way wayjur mën leen a jariñoo loolu ñoom ñu tànnal ko seen bopp ba noppi am ñoo xam ne ñi nanguñu nanguñu ne leen cee jàppale waaye yemuñ ca loola ñu ne leen du ko fi defee amul état amul jàppale bu muy jàppale waa daara yi no xëy na loolu ci ñëwee dana ci xam dana ci dana ci waaye boo xam ne bi moom lañ maanaam koppar yu yu takku yu ñu génne ngir jële xale yi ci mbedd bi mhm. waaw loolu su fekkoonte ne tey ji ñi yore daaree daaree alxuraan laa wax de dongo yi nga xam ne moom alxuraan la ñuy la ñuy jàng mhm. di génn di laaj sarax ndékki daal dellusiwaat mi ngi mel ne gone yooyu nga xam ne dañ leen a fekk fañ doon si wetu daara ji ñu doon jàngee fa lañ leen fekk yóbbu leen te booba ndékkee gunu boobu ma xam nga xale yi dañuy jàng njël waaw diggante bi bu fu ñu mo fu ñu taree seen bind ba noppi. Hmm. dañuy daal génn balaa ñoo balaa ñu balaa ñu balaa ñoo nekk ñi ci gën a bari. dañuy dem yalwaan ko. diggante bi ñu génnee foofu foofa leen fekk yóbbu leen. te boo demee sax ya est que yéen doo que yéen ñu xiif keroog ba jant su parce que dañuy après dañ leen yóbbu ci centre te ya fay xaw yàlla rek ko xam donc yooyu yëpp muy ay paramètres yoo xam ne dafa mat di sóoraale. Hmm. lii lii monsieur Baro wax moo dafa jot sénégalais yëpp jàpp ci heureusement sénégalais yi yàlla moo leen bëggalu alxuraan ñuy ay jullit yoo xam ne kenn ku ci nekk bu fekkonte ne tey daara amu fi tey ji nit dana bëgg a doom mu tëkku ndax wala nit bëgg a jullee néew mu tëkku mhm. wala nit bëgg a fas say mu tëkku te ñooñu ñëpp daaraa leen déformé mhm. suñu kilifa yi diine yi bari na ci kilifa yoo xam ne yi dañoo tàllal loxo jaar jaar jaar ci yàlla waan dellu siwaat ñëw teew tey ay xalifa mhm. a ma maanaam patrimoine boobu lañ bañ mu mu dox fi te yoon wii gaa yi jaar su fekkente ne dakkut xaw ma yoon ñoo nekk seen gannaaw bëgg bëgg bëgg wax ne dañu maanaam làqatoo ko ci ci ci gone yi nga xam ne ñooy taxawa gone yooyu taxawaale ca mbedd mi te xam leen xam nañ waxtu yu fay daje d'accord waaye waxtu yooyu nag su fekkente ne xale ñun suñuy dong moom day fekk ñoom ñu nekk ci daara yi hmm. wax dëgg yàlla nag ku bàyyi ba ñuy génn waxtu ñu wut lu ñu jëfandikoo hmm. nga fekk leen mais est-ce que ci contexte ci contexte bi ñu nekk nii parce que le contexte moo particulier hmm. ak ak menaces yeeg yëpp est-ce euh, euh, daara wala ñu yóbbu xale yi ñu jéem ko identifier parce que xale yi souvent boo leen laajee ñu ne la man moo jaadu woon

alors euh, daara yi est-ce que tey ci contexte bi ñu nekk contexte Covid 19 ak difficulté mi mu àndal yëpp est que li état bi di def jële xale ci mbedd mi bokkul également ci li man a jàppale daara yi parce que tey coow li coow li mooy bu Covid bi duggoon ci benn daara euh, kenn du xam fan la jëm. Euh, Cheikh Moussa Wa. xam mhm. dafa am benn baat bu wolof di wax bokk ci coow li. Mhm. xam li xew daf koo gën. ak ay dëgg. jàppal lii ma lay wax. Mhm. gannaaw bu ma la dégloo. Euh, sama tonton ah. ndax sama yaay ak yow ak yow ñoo bokk sant. kii mm, dama dégg ci sa kàddu nga ne état bi. aayewu ko aayewul yalwaan. sa à dire yalwaanu dem jëli sa sarax dellusiwaat ci daara ji. Mm-hmm. mais façon bi nga xam ne exploité xale yéeg yu mel noonu la ñuy wax. en 2005 nga ne état bi dafa tere yalwaan entre aayewu ko. ak 2005 def loi 75 bi aayewu ko woon daf ko organisé woon. Uh-huh. à partir de 2005 ñu ne. 2005 la loi génn. buy hmm. tere yalwaan. code pénal dugg kon loi bii nii laay gën a jàpp ka. absolument parce moo fi ne. pa palaatoo yi. Hmm. maanaam loi 2005 bii. traite bi la ñu wax waxul nga talal loxo de la ñu aaye. loi 2005 bii. waaw mayul taali bi muy yalwaan. buy jàng alxuraan ca daara ja génn jëri saraxam. waxuñ loolu loi bi mayewu ko. daf ni dañoo aaye traite. exploitation de la mendicité. maanaam yor xale bi di ci wut xaalis. bi di ci wut xaalis. waa kay li tuddee wut xaalis. définition boobu moo baaxul. Uh-huh. ndax sëñ daara bi nga xam ne taalibeem day génn suba teel. Uh-huh. sénégalais bi moo koy sarax. Uh-huh. mooy tànn kenn du ko kenn du ko wax ne ko. da ngay saraxe ceeb wala dugub wala suukar. am na koo xam ne xaalisam la yor moom la bëgg a saraxe. sarax mën nga saraxe lu la soob. léegi kooku ñu sarax xaalis mais daf ko yóbbul sëñ daaraam. chiffres yi ñuy joxe ay 500 francs 1000 francs ay mbir la yoo xam ne dama koy dégg. mu def mhm. may ree ndax man dama jaar ci yalwaan. wax naa ko léegi tey ci suba ci benn télé. Mhm. tout le temps plateau yi da ngay gis ku toog def ay mathématiques. waaw 1 plus ne ñaata milliards yi euh, génn sans talibé ku ne 500 ku ne 1000 francs mois bi lim lay jox. Mhm. man ma toog man di ko déglu man mi nekkoon talibé. sama sëriñ ca Kaolack. mosuñoo sas. te ñun ñenn ci daara ji dañ daan génn yalwaan yi euh, jooyantu ne sëñ bi dañoo sas. damay may wax ku jaar ci daara xam nga ko mm-hmm. te mm-hmm. mais mais cas yu bëri am na ñuy sas man dama ne te xaraam ne sàngara mais man sama sëriñ daana sas man uh-huh. daana wax indi leen temps boo indiwul mu xëcc say bopp ñu doole te pourtant te pourtant ay xareem da leen organiser woon yar leen sa sëriñ ah, un pour cent la ci biir sëriñ yi duñ ah, sas <laughs> donc donc lépp duñ sas du règle générale exception la ci d'accord kon loolu duñ ko jël bëgg ko ak àttee règle générale bi mm-hmm. mais est ce que milliards non bala nga ñëw ci mbas est ce yi ñuy tudd. évalué euh, moom la yalwaan expert yi sama genre gi euh, di làkki tubaab. bon évalué ba de li lay génn. est tuddee nuyu sama xarit Ndoye Bane. waaw <laughs> fii la nekkoon <laughs> ma dégg ko mu toog fii ci thème de la semaine. Ah. ne am na oustaz yu mu xam. sëñ daara yu mu xam. Ah. dañuy yalwaan loo taalibe bay dawali taxi tabax immeuble. Ah. samedi ci guddi ma déglu ko xëy dimanche woo ko nekkoon Ndoye maa ngeeg oto. te lii dama ko yàgg dégg nag amaguma woon koo xam ne xam naa ko mu wax ko. Mhm, ba ma ne ko nañ ànd nga war ma ko. Mhm. tey moom am naa temps ñaan naa la ko foo nekk. ma fekk la ñu ànd ñu ànd nga wan ma sëñ daara boobu ilaa yow mi naa xaadaa wanu ma ko. waaw ñoom dañuy wax daara mais du sëriñ daara mais yelwaan kat quoi en général. non boobu la war a arrêté. toog nag def say mathématiques ne sëñ